C'est le candidat Diplingom du parti Tahaus Aksangui qui ouvre cette euh, seconde tranche. Il a effectué une visite de proximité à Koloban et à la gare routière pompier. Il s'est adressé à ses militants à Koloban. ndax lii ma ñëw fii tey ñëw naa foo xam ne fi laa bokk ndax dama nekk xale sama baay nekk transporteur may ànd ak moom di ñëw ci yi donc ñëw naa tey foo xam ne fi laa bokk tey ci yoon wi posé nañu question bu nekk am na kenn xam dafa ma dab ne ma Jibril li nga dig Sénégal dikk ko chauffeur yi ndax dinga ko mën a def ma ne ko benn tontu rek laa am du ma wax lu ma xamul du ma def lu ma xamul du ma dig lu ma manul du ma fenn dëgg laa leen di wax su si yàlla àndee ëllëg Djibril Ngom président de la république billahi li ma wax yëpp dinaa ko def ndax chauffeur si dañu jooy li leen metti moo metti waa Sénégal yëpp li leen metti mooy essence bi cher na li leen metti mooy suukar si seer na li leen metti mooy diwlin ji cher na kon na koo xam ne amoo loo xam ne amoo njël muy xale yi muy jigéen ñi naka ngay def ba am loolu yëpp mën a faj gàcce mën na dellu sa kër def fa loo xam ne war nga ko def essence bi dama xam lu tax njëg li yegg fi mu yegg nag ngeen mën a comprendre ñu jël bateau pétrole wàcce ko Ndakaaru Njaay bateau pétrole boobu ñu jël pétrole yi def ko te ay camion camion yi dow dakaar ba ko Bamako ko essence bi gën fa moins cher que Dakar waaye léegi yéen mi nga xam ne yéen a ma xam-xam wax leen ma xam-xam boobu naka la ma a firee loolu ngeen xam ne loolu mënoo am loolu moo tax su ma leen nee ëllëg su ma faloo dinaa wàññi essance bi pour chauffeur yi ak pour Sénégal ngeen xam ne mën naa ko damay wër damay wër Afrique dem si fukki dëkk dëkk bu ma nekk li may njëkk laaj mooy essence bi ñaata la suñ ma waxee rek ma xoolax bu Sénégal mu gën a tuuti ba bu mujj bi dama dem Congo Brazza ma laajte essence bi ñu ne ma deux cent soixante quinze mais ñoom sax duñu produit pétrole man daa leen ko baal mais dëkk yi nga xam ne produire ñu pétrole dëkk yi nga xam ne ce sont des pays enclavés mooy amuñu géej muy Burkina Faso muy Mali ñoom ñooñu gën a moins cher. ngeen xam ne tey koo attaqué njëgu essance bi xam nga ne réglé nga presque moitié problème mu chauffeur yi mais tam réglé nga problème mu Sénégalais yi ñi nga xam ne ñooy dugg seen oto yi te fu ñu duggee seen oto yenn saa yi sax ñu wax ne paas bi yokku ne du ñu xam ne tax te yéen ñëpp ngeen xam ne essence bi moo ko yokk ñaareel bi mooy oto yi am naa programme boo xam ne. programme de modernisation du parc automobile du Sénégal Lolu nak suma togué loi bi may projet de loi rectificatif Je at je wala ma sur les transports sur les véhicules de transport en commun ndax ëllëg ngeen xam ne soo leen ko lebee tam la ngeen di remboursé mooy gën a tuuti tey li ngeen di remboursé. Le candidat Moustapha Nias de la coalition Benno Sigil Sénégal était en caravane dans l'axe nord avec des escales à Tivaouane, Louga, Pal, Saint-Louis et Rospecchio. fii ci Tivaouane de diina maa famille yi suñu maam Alaaji Malick Sy maa le xalif général Serigne Mansour Sy sama mag sama xarit sama am di jàmm fii ci Tivaouane

nous voulons donc développer l'arboriculture ici dans la zone de Tivaouane pour créer de petites unités industrielles et artisanales pour transformer les fruits. liñu xam moo di commerce transport en commun jàng moodu moodu yi marchand ambulant yi ak artisan yi loolu moo yore Louga dañu bëgg ñu développer l'agriculture fii xamoon ngeen amoon usine bu daan fabriquer ci à partir de l'arachide muy fabriquer huile à na fii de daf fiy dellu si ndax loolu mooy créer emploi dana tax ak yeneen industrie artisanale tax Louga mën a fexe ba ndaw yi am liggéey sàmmkat yi jarga yi nga xam yore nag muy ca Linguère ca Jolof Daara Linguère Barkéej béekee kër Momar Sarr ak Ndiaye ñu dimbale leen ngeen am aliment de bétail cher ñu may ngeen pikir seen nag somto nagi yi somto maa ngi leen di fàttali ne jigéen bu ayewul du yàkkale ay bi nag moo di ngeen gindi fi Ablaye Wade ngeen jël yëf yi te loolu mën ngeen ko na ngeen ko def le février Louga est une ville historique il faut lui donner son lustre de ville première. Louga n'est pas une ville secondaire. C'est accueilli le comité, comité électoral de Béno réserve à la délégation de Béno Civil Sénégal est un accueil historique. Son caractère nocturne n'a rien enlevé à l'intensité de l'enthousiasme de cette belle jeunesse du Sénégal ici à Saint-Louis, ce que nous vous proposons, ce que nous vous proposons, c'est précisément d'arrêter les opérations de sacrifice de toute une génération de jeunes et dont l'auteur principal et exclusif s'appelle Abdoulaye Wade. Saint-Louis est une ville d'excellence. Saint-Louis est une ville scolaire. Saint-Louis est une ville universitaire. Saint-Louis est une ville scientifique. Saint-Louis est une ville de la science et du savoir universel. Damane, développer l'université Gaston Berger nous allons construire le port fluvial de Saint-Louis et nous allons réhabiliter les industries touristiques autour de l'hydrobase la zone rurale de Saint-Louis Sengalel Dakar Bango jusqu'au barrage de Diamant. Alors cette zone est une zone à vocation agricole, à vocation de pêche. Alors l'agriculture et l'élevage peuvent avec le maraîchage développer rapidement la zone de salut. Cher Mamadou Abiboulaye du Front pour le socialisme et la démocratie Benno Djoubel, FSD BJ, était aussi en caravane à travers les rues de la capitale. Il a fait une déclaration au marché Koloban. Assalamu alaikum, Boki Sénégal. asalaamaaleykum mbokki kolobaan xam nga kolobaan de fii la nit ñi di daane seen doole dëgg dëgg dëgg fii la jëf jël ñaq tedd fekk baax fii la ay xaleel di jóge ci biir kaw ga ñëw ci Sénégal ñëw ci Ndakaaroo te dara taxul ñu ñëw lu dul bëgg dimbali seen i njaboot bëgg a taxawu seen i féete leen fañ leen féete woon démb te nag réew pour mën a dox lala la sa bàyyi bàyyiloon danga ca war a góorgóorlu ba pare dollu ci leneen ngir jox ko say ay doom. mais loolee nan la mën a nekkee su fekkente ni base yi war a tax ñu liggéey su fekkente ni jumtukaay yi war a tax ñu mën a taxawal Sénégal ba mu mën a taxaw jumtukaay yooyu nekkul combat bi may mën man pour Abdoulaye Wade génn ci constitution bi génn ci laal constitution bi génn ci biir élection yi mooy combat bi jara mëne lu tax ndax dama bëgg kii nga xamee ni day daan doolem fii ci marché bi ak ñii nga xamee ni suba ngoon ñi ngi fii te ñoom du député comme Cheikh Bamba Dièye amuñu immunité parlementaire du ñuy maire comme Cheikh Bamba Dièye pourtant de ci réew mi la bokk te pour ñu mën a gis seen bopp ci réew mi il faut que alal réew mi dox ba fekk si leen fi ñu nekk jox leen liggéey jox leen dëkkuwaay jox len jumtukaay yu ñu fajé seen i njaboot jox len fu ñu mën dem wut fa liggéey bo xamé ni bu ëllëgé dinañu mën a taxaw assumer seen rôle citoyen loolu mo tax mais loolu mo tax. vrai combat bi njalbeenu combat mooy taxawal dëgg ci Sénégal ndax koo xam ne dafa dugg ci sa réew wala dafa jël sa réew wala jël sa bopp réew par infraction koo xam ne dafa sàcc wala dafa tappale ba nekk président de la république bu la waxee ni dinaa la sampal dëgg daf lay nax bu la waxee ni dinaa la tabaxal Sénégal daf lay nax bu la waxee ni Sénégal dina bi daf lay nax te man xawma Sénégal lan moo ñu dal léegi ay yéen doomu Sénégal yi yeewu leen dellu siwaat leen seen xel xam leen ni réewu Njaajaan Njaay ngeen nekk xam leen ni réewu Lat Joor ngeen nekk xam leen ni réew Sidi Haj Malik ngeen nekk xam leen ni réew Limaamu bàyyi Ñas ngeen nekk xam leen ni réewu Cheikh Ahmadou Bamba ngeen nekk réew moomu kenn mënu ko woon nekk kenn mënul nekk ci réew moomu ak jàmbaare yi nga xamee ne doomu Sénégal yi jàmbaare nañ ko ñu bëgg sàggan sàggan ba ab màggat boo xamee ni sa bal jeex na sa jeex na nga ni par force à la di nga nekk président de la république bu ngeen ko seetaanee bu ëllëgee buñ leen fi fekkaatee fii daan leen bu buñ leen fi fekkaatee jël seen suuf buñ leen fi fekkaatee jël seen doole buñ fi fekkaatee jël seen alal bu ëllëgee bu ngeen amolee fu ngeen faj seen doom bu leen ko jooy kenn ndax yéen a ko seetaan su ngeen bëggee Sénégal dellu siwaat su ngeen bëggee réew mi taxaw ndax tey jii dama woote mars ma damaa woote marche wala taxaw ca obélisque di candidat à l' élection présidentielle ñu ne ñoo lànk Cheikh Bamba amul droit ci def noonu te Ablaye Wade ak ay farandoom Ablaye Wade ak moo raw ak ñamu àndal ak ña koy jàppale ñëpp fu leen neex ci réew mi sa place de l' indépendance ba sa biir fongali mi fu leen neex la ñuy taxaw di campagne man nag di candidat te mu mag ma fuuf te man ma nekk ci citoyen yi di dox ci biir réew mi ñu ne ma obélisque doko fa défé place de l'indépendance doo ko fa défé xool leen ci biir campagne la ko mën ci biir campagne électorale wu président de la république le mën di interdire ay espace di restreindre ay liberté wa koku bo légué bu président de la république du leen comme ay jam jaay len bu président de la république du leen comme ay sayu mat yóbbu leen marché muusante wata len depuis 2000 ba léegi mi ngi len di wanter suba ngone dama ne wolof dafa ne kundomi nu rey sa maam boo gisee lu ñuul boo amee fayda da ngay daw kundomi nu rey sa maam boo gisee lu ñuul boo amee fayda danga war a daw te bare na luy raam si ñag bi la jëm lii raam yëpp si ñag bi jëm bu ëllëgee bëgguma benn sénégalais toog di jooy parce que man dama bëgg balaa ñu naan naam ne xam ngeen ni de mën naa candidat de mat naa candidat ndax lépp lu candidat war a am am naa ko. affaire bi dañ ni pass la te pass bi 65 millions la joxe na 65 millions yi te nak malen yi ma len man ma len ëpp xam-xam maa leen ëpp fulla te nak xam len ne mo pas tax ma wara jog taxaw ci réew mi bu ma ni damay Wade ci élection yi c'est parce que j'ai le souci du Sénégal j'ai le souci du Sénégalais pour que réew mi man taxaw ma ngi len di gërëm di sante sant ko len li ma len wax ndax c'est très important jërë ngeen jëf Mordien du parti de l'espoir Yakar était dans les régions de Kafrine et Tambacounda et c'est à Congel qu'il a fait sa déclaration. Assalamualaikum, mbokki Kungel, mboti Peke mbokki Sian mbokki Niakhène mbokki Tambakunda, mbokki kumbantung Yen ñëpp maa ngi Tainat di nuyu Kungel nag fii ci Koungheul laa bëgg a wax loo xam ne tey Ablaye ci bëgg parce que fan yi yëpp maa ngi leen di wax ci sama benn candidat moo ci am programme bu wér bu ñëpp xam muy Mor Dieng nga xam ne moom programme am juróom-benni ponk la juróom ponk la bi ci jëkk mooy jàngale ak yar bi ci topp mooy wérgi yaram bi ci topp mooy mbay ak sàmm beneen bi mooy justice juróomeel bi mooy que infrastructure juróom-benneel ñi nit ñi am liggéey mais tey. wax waxu programme tey dama bëgg a wax Ablaye Wade yow laay waxal les yeux dans les yeux wër naa Sénégal ba mu daj presque à mi parcours ñi ngi tey ci dixième jour mais li ma gis ci réew mi mooy ñi ëpp ci réew mi bëggatuñ la li ñu bëgg mooy nga dem ci jàmm ak salaam ma ne ma ne ma ne ma ne président Wade leer na ma ne yow mënuloo gagné élection yi. boo siifee élection yi ni ngay génne ci réew mi du nekk génnin bu rafet te yéene wuñ la loolu ah président Wade ma ne buñ la la gagné nangul nga lem say bagages nga dem parce que réew mi bëggatuñu la ma ne ma ne ma ne ma ne wante bu ñu leen bu ñu fi jëlee Ablaye Wade ñi fi nekkoon démb ak barki démb nga xam ne ñoo yàq mi ngeen mos leen leen te ñu wala parti socialiste place ci Sénégal ay njiit yu bees je m'adresse ici à Kungel au président Wade les yeux dans les yeux je lui dis que la majorité des Sénégalais ne veulent plus de lui et qu'il a intérêt à quitter le Sénégal dans les meilleures conditions et d'accepter les résultats de ces élections. Parce qu'il sera battu, il sera battu à Concernant mon programme, je suis le seul parti qui a un programme qui s'articule autour de six points à l'image d'un hexagone régulier à six côtés. L'éducation et la formation, la santé, l'agriculture dans son sens large, les infrastructures, la justice et l'emploi. Les autres n'ont pas, de programme. Et Ablaïwad, ses dérivés, ou ceux qui étaient là avant, ils ne peuvent pas relever la situation du Sénégal. Ils sont disqualifiés. de l'initiative démocratique euh, Dube a fait un tour au village artisanal de Soumbedjoun et aux parcelles assainies Et c'est à Soumbedjoun qu'elle s'est adressée aux artisans. parce que corps de métier liggéeyu loxo man j'avoue que artisanat xaw naa fi géej xaw naa fi gëj waaye kuy wax rek dangay wax te dëgg te yàlla tax artisanat bu njëkk bi mu fi mës a bàyyi ak bii yu uute na uute na fii boo fi mësaa ñëw doo dox ci yoon yi da daa fees del tubaab yi touriste yi façon doomu aadama bu la réer ci àddina boo musaa ñëw ci artisanat bii boo taxawee ci benn place daanaka da ngay rang ba kooku jóge fa kii jënd jóge fa yow nga dooru mën a am place taxaw waaye nag changement am na fi yéen a ngiy wax tunnel bi tunnel bi moom li mu def dafa yokk waaye fekk na artisanat presque du ñu ko minimiser tey ba artisanat sax mu ngi commencé dee mu ngi commencé dee moom ni mu meloon bu njëkk ba tureel bi nag ñëw dolli si dolli si dolli si encore parce que bu njëkk boo mësaa dox ci tali bii wala ngay dawal oto da ngay jàkkaarloog village artisanal jàkkaarloog seen yu rafet yi ngeen di defar macha allah da ngay am envie tout de suite nga freiné taxaw xool li ngeen di liggéey wala boo mënulee taxaw it di nga bàyyi sa xel ne man de bu ma amee bés temps wala benn weekend dinaa dellu si artisanal te léegi loolu yëpp amatu fi parce que suñ leen defalee tunnel bi fii. jaaratuñu xol li ngeen di taxawu ci bi xam nga metti metti ci day metti parce que metti na ba leen bëgg a man wax ak man ma dugg ci politique lay injustice la parce que village artisanal wax tourisme ci Sénégal number one tourisme musul dugg Sénégal même bu demee dëkk ci petite côte ak fu mu mënta dugg balaa ñibbi na leen yóbbu leen mu village artisanat ngoon nag gëdd googu ngeen amoon biñ leen xamee woon laa bëgg suqati ba nga xam ne seen place ñu joxaat leen ko parce que mérité ngeen ko liggéeykat ngeen liggéeykat ngeen bu ngeen wàcc midi yéen a ngi fi yendu te nag gis nga liggéeyu loxo duñ koo xeeb mais liggéeyu loxo ci boppam moo metti parce que c'est la tête. xam nga ñuy liggéey ci bureau bi dañuy bind waaye liggéeyu loxo ak créativité loolu mooy liggéey boo waaw mais parce que da di créer parce que yéen da di créer man xam naa luy créer damay ñaw damay tëdd ba guddi sama xel dem ci benn modèle ma ne bëri jóg ci xaaju guddi de dessiné modèle bi bañ koo fàtte daal di tëddaat ñoo bokk lu ñuy def ñoo bokk fu ñuy yëngatoo ñoo ko bokk. waaye itam il faut que ñu améliorer aussi seen condition de vie fii tey boo fi duggee tu demande demandes ban genre village artisanal la waaw parce que war lu ñuy defar ak defaraat lu tax du ñu xalaat artisanat bi lu tax du ñu ñëw réfectionné waat fii defar ko parce que aussi touristes yi bëgg nañu lu baax ñuy ñëw jënd si aussi bëgg nañu foo xam ne fu ñu fa duggee dafay aéré ñu defar ko ba mu rafet dafay attiré.

candidat Ibrahim Fall de la coalition Tahautem ak Ibrahim Fall a fait une déclaration en Wolof et en français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je dois vous informer des risques d'embrasement de la campagne électorale. En effet, le président Abdoulaye Wade, en plus de son coup d'État constitutionnel, a franchi un nouveau pas en interdisant la semaine dernière la tenue d'une manifestation pacifique des candidats membres du mouvement M23 depuis l'université jusqu'au ministère de l'Intérieur en arrêtant délibérément et illégalement cette manifestation au niveau de la poste de Médine. Les candidats, après s'être concertés et dans un souci de préserver la paix, ont finalement décidé de ne pas forcer le barrage. Abdoulaye Wade vient de réitérer son acte en interdisant une manifestation du mouvement Yanamar sur la place de l'obélisque et s'apprête demain à interdire, peut-être ce soir, la manifestation collective des candidats membres du mouvement M23 en direction de la place de l'indépendance. Et pourtant, L'article L61 du Code électoral est clair. Pendant la période électorale de la campagne, toutes les manifestations sont autorisées sur l'ensemble du territoire national. Il suffit simplement d'informer les autorités. C'est donc encore une fois une violation manifeste des dispositions de la Constitution, de la loi et du règlement. Il portera en conséquence toute la responsabilité de tous les incidents qui pourraient intervenir s'il persiste dans cette interdiction. Boki Begeyegel, tooxi na ndax jàmm ji ñuy wut Ablaye Wàdd bëggu ko ay bés yi weesu am na benn doxantu boo xam ne bii mbër yi bokk ci M23 ñoo àndoon def ko jóge université wala dem euh, ministère intérieur bi ñu ñëwee ba porte poste Médine mu téye leen fa ni duñu fa jaar kilifa yooyu jàmm tax ñu ni duñu jàmmanteeg euh, takk der yi léegi dellusi na defaat lu mel noonu ndax aaye na mouvement yanamar ñu def ay yënga yëngu-yëngal ci place de l'obélisque te suba wala tey ci guddi dinañu aaye candidat yu m ñu def benn dox bu jóge ci poste Médine jëm place de l'indépendance li yoon wax leer na nañ daf ni jamono boo xam ne bii campagne électorale am na képp koo xam ne kii mbër nga war ngaa mën a def yëngu-yëngal nu mu la neexee ci fépp foo xam ni fii ci réew mi la bokk amul benn fànn bu réew mi amul benn koñu réew mi boo xam ne bii dañ la koy aaye kon nag su fekkente ni moom dafa bëgg a aaye M23 aaye yanamar ñu yëngu-yëngal ñëpp war nañoo xam ni moom moo bëggul jàmm moom moo bëggul ay na ko ñëpp xam nag ngir suba lépp lu fi am ñu xam ni lay wàdd moo ko sooke li ma leen mën a biral moo di mbëri taxaw temm yi ak mbir yi nga xam ni dañu bokk ci M23 dinañ taxaw tem lépp loo xam ne lii yoon may na leen ko dinañ ko def donte sax dañ ci jàmmaarloo ak takk der yi na ko ñëpp xam ndax ëllëg ak si ñu mën a xam kan moo bëgg jàmm ak kan moo bëgg ay ñëpp xam na ni Abdoulaye wàdd moo bëgg ay jërë ngeen jëf.

Nous terminons cette seconde tranche avec la candidate Amsatoussa Sidibé du Parti pour la démocratie et la citoyenneté PDC. Elle a été dans la région de Fatik à Gandia et elle s'est adressée à la population. proximité dem seeti jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci xorom si fii nag lañu nekk nii ci gànjaay di fi def suñu déclaration ci monde rural waaye monde rural sonn nañu dañ leen fàtte ndax gis nga ni mu demee ni courant sax amul ci biir commune nu Gandiaye ndox monde rural seen souffrance bare na ndox amul ci gox yu bare wérgu yaram amu fi ndax amul centre de santé amul poste de santé ay charrette lañuy teg nit ñi bu ñu feebaree pour yóbbu leen fu sore yenn saa yi seen bakkan daal rot ci diggante bi njàng mi di problème xale yu bare demuñu école bu ñu demee école duñu fa yàgg déperdition scolaire lañu ko wax waxuma sa formation professionnelle waxuma chomage bi nga xam ne dafa lakkal witt jeunesse bi ak ñeneen ñi man yi euh, balaa ngay dugg si ci biir àll bi enclavement bi dafay yàq sa oto sonal la nag ñi nga xam ni amuñu oto di dox ay kilomètres ay kilomètres pour génn ci mbedd mi man yi euh, production bi li ñuy ji problème la ndax semence xam ngeen nu mu demee ñàkk na fi ndax xam ngeen ni dañu rey dañu wala boog nasaxal baykat bi nga xam ni amul moyen yu bare ñu jël guwaana teg ko ca kaw ba pare paacoo ko ci kaw ay xarit crédit bu ñu bëggee liggéey muy góor muy jigéen duñu am ay crédit ndax seetlu nañu ni li ñuy wax crédit agricole marché wul ndax dafa àndul ak lii béykat yi soxla insectes yi maanaam euh, gonóor yi naaw gunóor yi lépp li ñu ji daf koy yàq te seen suuf yi dañ koy pàcco milieu rural ba pare bu ñu jiyee pour dem yóbbu jaay ko jafe-jafe bu nekk lañuy ñu jànkonteel moyen de transport bi lay yóbbu amuñu ko moo tax ñun ñu ne fii ay nit a fi nekk nit ñi nekkuñu ndakaaru dong seen wér-gu-yaram ak plan faj ma dañ ko toppatoo dinañ leen wutal ay centre de santé ak ay poste de santé ba pare wutal leen ñu leen faj jox leen ay garab parce que sant yu bare dara nekku fa te dafa tëju jox leen ndox jox leen courant defal leen formation professionnelle jox leen ay semence ba pare wutal leen benn banque banque boo xam ne banque agricole dina am njariñ ci yéen ngeen mën ci wut ay crédit pour seen seeni projet seeni projet dinañ leen wutal ay unité yoo xam di ngeen fa mën a garder la ngeen ji te di ngeen ko mën a garder ba du yàqu ba nga xam ne gunóor yi duñu ñoo lekk ko ba mu jeex li ma bëgg dolli mooy fii ci biir àll bi tali amu fa piste amu fa yooyu daan ko def ndax ngeen mën di commercialiser ndax ngeen mën di dem ci seen tool di fa liggéey seeni luuma yi dinañ ci def ay jumtuwaay yoo xam ni dangeen koy soxla par exemple ay gaanuwaay loolu lu normal la ñun dinañu def assise sur le ndax daf ñu soxal am na nag lu ma waxoon ba ñu demee ca xorom sa ndax nit ñi ni ñuy liggéeyee metti na dinañ leen jox ay jumtuwaay ay gants ay bottes ay lunettes ay pelles yu ngeen mën a liggéeyee ba pare dinañu fexe ba nga xam ni bu ngeen di jaay du ngeen perte li ngeen di defal dina leen jariñ jariñ seen famille Voilà, c'est la fin de la seconde partie de ce journal de la campagne électorale. Merci de votre aimable attention. Au revoir.